nañ mu mun a li nga xamante mu moo di ñaari parti kenn ku si nag dafay daal di xëcc mbir mi jëmale ko ci sa bor ndaxte ñi nga xamante ne moo di mbirum Ousmane Sonko kenn mënatu kaa dugal ci li nga xamante ne moo di liste tëral ku ci mel ni ki nga xamante ne moom moo di maître El Hadji bi xamal ne rek Ousmane Sonko euh, dugal ko ci li nga xamante ne moom moo di liste électorale yi weesu na maanaam li nga xamante ne moom moo di euh, candidature Ousmane Sonko jamono ji ñu toll nii mënatul nekk fii ci mibra fi nga xamante ne foofu la ñuy waajal li nga xamante ne moom moo di jongante élection présidentielle euh, bu février 2024 moom maître Massokhna Kane di ñaawlu bu baax a baax li nga xamante ne moom moo di PV yu nga xamante ne nee na police daal di koy yëkkati te nee na PV yooyu noonu ay faux PV la amul ci benn bi nga xamante ne bu dëggu la ndaxte ki nga xamante moom moo di huissier de justice bi tamit demoon na def constat ci li nga xamante ne moom moo di affiche bi ñu doon wax ne def nañ ko jëmale ko ci li mbirum Ousmane Sonko daal di wax ci li moom moo di mbirum radiation bi ñu rajo Ousmane Sonko ci liste électorale ba nga bokk ci li moom moo di élection présidentielle nee na muy taw dafay daal di doon candidat élection présidentielle bu février mbokk i lii ay kaddu la yu tukkee ci nga xamante ne moom moo di maître Massokhna Kane kenn ci avocat yu nga xamante ne ñoom ñooy leerlu Ousmane Sonko kere bu mu doon génnee ci li nga xamante ne moom moo di audience spéciale bu ñu doon amal rek ni ki démb fële ci tribunal d' instance hors classe bu Dakar bi nga xamante ne moom moo doon atte démb rek mbirum radiation bi ñu rajo Ousmane Sonko euh, ci bi nga xamante na lool diggante nga xamante ne ñoom di avocat ne ñoom ñooy avocat Ousmane Sonko ku ci ni maître El Hadj Diouf ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo di avocat Ousmane Sonko ndaxte euh, ki nga xamante ne moo di euh, président tribunal bi dafa daan di leen di rappeler à l'ordre daan xamal ne rek li ngeen def ni amul benn solo ndaxte nga xamante ne moom moo di mbir mi mooy li nga xamante ne moom moo jëm ci wàllum radiation Ousmane Sonko mu mel ne nag li nga xamante ne moom moo di mbir mi noppeeguñ si ndaxte ak mënta doon ak verdict bi nga xamante moom mooy moom la moom moo nar a tukkee dem euh, ni ki suba rek ci euh, li nga xamante ne moom moo di tribunal d'instance bu Orclair bu Dakar ñaari parti bi benn parti bu si nekk am nga possibilité daal di defaat recours mu mel ne nag mbir mi euh, xamaguñu ndax ki nga xamante ne moom moo di Ousmane Sonko ne mën a doon candidat am déet waaye lu leer ba leer ni ki suba rek la ñu nar a joxe li nga xamante ne moom moo di verdict bi nga xamante ne ñëpp moom la ñuy xaarandi foofee ci tribunal d'instance parclage bu Dakar bi nga xamante ne moom moo doon di ah, mbir mu radiation mu nag xibaar Sonko ci liste moom mi nga rek mbir PV yoo noonu amu ci benn PV bi nga xamante bu dëgg la PV la ba tax na nag moom mu mën a jàpp ne rek Ousmane Sonko ba léegi candidat la si jongante élection présidentielle bu février